bind mu sell mi nee na ci jëf ya saar fukk ak benn aaya fukk ak juróom ñeent ba aaya ñaar fukk ak juróom benn ñi tasoon nag ndax fitna ji amoon gannaaw Étienne ñu dem ba diwaanu Fénisi ci dunu Sipar ak ca dëkku Antiyos di wax kàddu gi waaye yemale ko ci yawut yi moona amoon na ci ñoom ay niti Sipar ak dëkku Siren ñu ñëw ci Antiyos ba seen wax law ci Grek yi it ñu di leen xamal xabaar bu baax bu yéesu borom bi te loxob borom bi ànd ak ñoom ba mbooloo mu mag gëm te wàññiku ci borom bi ba mbir ma siiwee ba àgg ci noppi mbooloom ñi gëm ci yerusalem ñu yebal barnabaas ba ancos mu agsee nag ba gis yiw wi leen yàlla may mu bég ci te di leen xiir ñu wàkkiirlu ci borom bi te dogu ci ndaxte nit ku baax la woon te fees ak xel mu sell mi ak ngëm noonu mbooloo mu bare dolliku ci borom bi gannaaw loolu barnabaas dem ca dëkku tars di wut sol bi mu ko gisee mu indi ko ancos noonu atum lëm ñu bokk ak mbooloom ñi di jàngal nit ñu bare te ci ancos lañu jëkka tuddee taalibe ya gaayi kirist